السلام عليكم ورحمة الله. ما عندي من كان هناك دلنا زيار. ما عندي تدو أنتجي. دك كم ساعة. ما عندي تدو أنتجي. دك كم ساعة. بعد لين نوي ببا دلنا زيار. No no. ما أنا كلوا مسلم بدلا. Hmm. No no no no no no waaw man animation bi ma bëgg a def man dama bëgg a waxtaan waxtaan ci maa ngi jégg na baat bi ma xaw a déetu dama bëgg a waxtaan waxtaan ci societé bi léegi ni muy demee sunu njaboot nan la ñuy dundee ak ñoom wax dëgg yàlla man ci sama gis-gis comme am na valeur yu bëri yoo xamante ne yi suñu doom yi ñu ngi koy commencé di perdre ñun jeeg ji sëy ci biir kër yi ñu ngi commencé di ko di ko perdre suñu borom kër yi ñuy war di yor aussi ñu ngi commencé di ko perdre man loolu laa bëggoon ñu waxtaan bàyyiwaat xel bu baax kenn ku nekk li la indi ci àddina bi nii ak li bi ngay dund nii li la ci war ak sa ëllëg man ci loolu laa bëggoon di waxtaan incha allah waaw dama koy seetaan maanaam boo xam ne bi man maa ko war a def ou bien hmm. waxtaan émission waxtaan waaw man nag d'habitude comme su ma xëyee damay génn liggéey ngoon gi bu ma ñëwee moom laay jàpp wax deug yàlla même ba ci biir rek émission bi ñu tegaat ñuy def ci Noël la xawma je crois pas ma ngi koy gis waaw non ba cëg gi wax deug yàlla duma fa nek ndax damay xëy liggéey waaw goudi beeg goudi lay ñu inshallah allah te bu ma ñëw maa ngi nek ci xale yi waaw jamono ñu loolu li wax deug yàlla lool sax nak mo tax mo bëgg ci am émission waxtaan ci ndax jamono ji wax deug yàlla fu mu ne nii jaxasoo na trop côté yëpp Mm-hmm. maanaam manque de communication bokk na si waaw jot gi parent yi amatuñ ko ko muy góor ko muy jigéen xale yi aussi la majeure partie déggatuñu waaw loolu bari na tax bokk na ci cause yi nga xam ne yi baax na divorce yi bari mm-hmm. Mm-hmm, manque de ak temps bi waaw nee na parents yi toogatuñu ñu ngi xëy di uti lu ñu indi ci njaboot gi jamono metti na waaw ak yooyu. Mhm. ñaar yëpp. Mhm. ah góor ak mais bu fekkee góor gi waroon a jox jab soxna si pour mu toog ci kër gi daanaka matalewul lépp te bëggul def leneen lu neexul yàlla mais moom tam day mën a jóg liggéey rek daani dooleem indi ci njaboot gi waaw.